jaale askan wi yëpp jaale njaboot yi euh, étudiant Alioune Badara Ndiaye ak euh, Oulimata Dia euh, bu université bu Bambey ak université bu Dakar nga xam ne dañoo dellu seen borom njaale bi sama njaal la jëm ci askan wi njaal la jëm ci famille yi njaal bu nga xam ne man ak communauté universitaire bi yëpp ñoom ñoo koy def bu loolu weesoo wax nga fi situation bi ci université yi gis nañ ci fan yi ñu génn université yi wax ji actualité bi bëri woon na ci université yi lu ko waraloon li ci tax mu gën a feeñ mooy une grève bi ñu waxoon am na Bambey grève bi ñu amoon bi ñu waxoon ne am na Bambey ay point point étudiants yi ñoom ñoo génne woon ñoo demoon grève bañ demee grève amoon nañu plateforme revendicative benn revendication bi dañoo waxoon nañu wone nañ joxe résultat autopsie bu étudiant Alioune Badara Ndiaye loolu ñu won leen ñëpp loolu avant ñoom ñii dem grève ñëpp presque bi wax na ci ñëpp waxoon nañ ne xam nañ ne comme niñ ko yaakaare woon ñoom ci njalbeen que du intoxication bi amoon fukki fan ak juróom avant moom muy génn àdduna moom moo taxoon mais moom dafa amoon feebar bu nga xam ne amoon na ko te famille xamoon na ko te famille am amoon na ci benn magam bu nga xam ne médecin la woon ñooñu ba ñu leen dégloo ñoom ñëw confirmé que met feebar bi mu amoon feebar bu xaw a yàgg la ci moom bu nga xam ne ci li ñuy wax reesam la àndoon mooy foie loolu jox nañ leen résultat yi man maa joxe résultat yi recteur bi ba boobu ba ñaari fan après bi étudiant bi biñ ko indee dakaar pour autopsie ko beneen yeneen point yi ay point la yu nga xam ne diggante étudiants yi la woon ak ñi